suñu bokki Daaru Muxti bokki Cheikh Mamadou Mortada ak Cheikh Mamadou Lamine Bara xanaa di tënk rek ci kàddu yu gàtt yu ñëw seet si sunu mbokk sunu xarit Cheikh Mamadou Basir bu Cheikh Abdoul Khadir muy sunu xarit dafa yàgg ndax euh, bu ma lu ëpp ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne màggalu Sëñ Abdu màggalu Sëñ bu ne sama kër lay yendu kon kooku fonk na ma waaye may fonk naa ko ngir jikkoom fonk ko itam ngir waajuram fonk ko itam ngir baaxam ndax yan bu rëy bi mu yenu te sun borom yan ko ko rafetal na ko ndax ku ne xam na ni yoon wi bari nay bang bang waaye mën na ko muñ te ku mënta muñi bang bang yi doo mën a doxal dara kon moo tax li ñu ko yan nag mi ngi koy doxal ci nam gën a rafete man lépp lu ma soxla ci wàll gi ñu ko dénk day jàppane na ko bëgg ne la koy defee te du ma ci sonn léeg sax day laaj li ma bëgg waaye yàlla na taw may wax sama bëgg kenn waaye ñu dellu si nag ci sëñ Abdou Khadir mi waral lépp nga xam ni moom dafa rëy cër ndax dafa niru Seydina Muhammad ci lépp nag ndax daf koo roy mel na moom laa gis ci njabootu sëñ Tuubaa ku ni Seydina Muhammad ñëw na seet si la kooku nag dara jàll yu rëy rëy rëy xam naa turam wu rëy woowu nga xam ne Abdul Xaadir da caa lu bare bare bare ndax daan faj ñu feebar ñi ci baatin ak ci saahir waaw ndax daan jënde ordonnance di faj ni ñi waaye di leen ñaanal tam ñuy wér di koo xam ni li mu ramu ci kaw su kenn xamul nu mu toll hmm. ndax dañ ni man sala xalfa max foorin xufira lahu ku julli ci gannaaw ku ñu jéggal ñu jéggal la te koo xam ne ba nga gënee àdduna la sëñ bi wax ne ceerno tourné uddalal saw yoon koo ñu jéggal ko kon sëñ Abdou Khadir la koo xam ne bis bi gënee àdduna la am loolu kon boroomu cëre ngi noonu bu rëy rëy jële naa nekk gi nekk sëñ Tuubaa nekk wajuram waaye dafa nekk ndijaayam mboole ci kon moom léppam sëñ Tuubaa la day mel ni sëñ Tuubaa la xawlan wa fi'lan ci wax ak ci jëf yëpp sëñ Tuubaa la di ko sàmm di ko màndu di ko bari njariñ ku mën a dimbalee te dimbalee ñëpp nag bi mu fi nekkee ba bi mu fi jógee ci jàmm yàlla lañ ko xam ak dimbalee dimbalee nit ñi diine ji itam li sëñ Abdou Lahad nekk xilaafa yëpp xilaafa yëpp moo ko moo ko moo ko yanoon ba nattu yi rek bu ne dal na ko lu dal yoonte bi ci nattu rek daanaka xaw na ko dal ndax diine taxoon yoon ko yong waaye taxut mu dellu gannaaw ca lam nekkoon kon nag kooku su bisam ñëwee ku dib julit ku dib taalibi ku bëgg lu baax war nga caa wax war nga caa jëf ci lu koy jaral war ngaa ñëw itam tëbb si sàkku si barke ci bis bi ndax lu ci waay sàkku rek sun borom mën na la ko defal kon nag ñu man nag njaboot sëñ Abdou Khadre ñëpp laa ko seqal ñëppay samay xarit sëñ Cheikh ba ci suuf ñëppay samay xarit danaa ko wax fu ma toll lépp lu may yëngal lu ne ñoom ñoo cee jiitu ñoo cee man kon ñoom dama leen amal boo xam ne mënu ma leen ko fay xanaa di ñaan ci barke sëñ Tuubaa rek ak barke sëñ Abdou Khadre luy seen bëgg rek sëñ Tuubaa def ko ci barke sëñ Abdou Khadre te pay gi yàlla fay sëñ Abdou Khadir jullit yëpp xaj na ci murit yëpp xaj ci kon nag ñu ngi yaakaar loolu di ñaan suñu borom ci baxam ci barke sëñ Abdou kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah ci barke sëñ Abdou Khadir yàlla dimbali la ba nga mucc tey mucc ëllëg ñi nga xam nag dañu ko da leen jaboote ci sayir ak ci baatin tam yàlla féet leen fu kawe seen jox